bisimilah ci xibaar yi tàmbale kook déclaration boo am solo bi nga xam ne ni El Hadji Sidi Lamine Niass mi PDG bu groupe fajir war na koy amal ci ngoonu koy jëlee maanaam bu ñeenti waxtu demee ba fekk lu toll ci fan fanweeri minute moom El Hadji Sidi Lamine Niass ah, fas kon def ab déclaration boo xam loo xam ne nii incha allah daañu leen ko dëkkal en direct ci Walf TV ak fu FM ah, lu jëm nag ci déclaration bi incha allah kon ah, daañu ci dellu siwaat wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi campement Ngexoox doon jullit ñi fu nekk ci réew mi la ñu bàyyee ko ñëw daje ci barab boobulee fas yéene julli lii di aydal lii di salaatul tasbih rahmatullah alayhi alhaji ibrahima sakho moo ko fa njëkk a jëmal boobaak léegi toll na ci ñeen fukki at juróom-ñett buñ sukkandikoo suñu naatango biir Cerno Daaf campement Ngexoox ku fa sànni la yu mu takk ndax ay doomi aadama dañuy dem ca campement fekk fa en direct Cerno Daaf ñu ngi fii ci fi ñuy amalee julli gi di salaatul tasbiya julli gi nag ñu koy amal diggante tisbaar ak takkusaan ren nag moo ñeent fukk ak juróom-ñetteeli yoon ñu koy amal ci sosoon julli gi nag moo di sunu maam El Hadj Ibrahima Sakho ñëpp di ko tuddee ak mbégte mu bari Ibrahima Sa Ibou Sakho sunu maam Ibou Sakho moomu jiite na ko ñaar fukki at ak bu muy génn àdduna ci atum mille neuf cent quatre-vingt-trois flambeau bi mu di doomam bi El Hadj Abi Sakho mu di El Hadj Baye Sakho ñu gën ko xamee ci Baye Tam ñoom ñi nga xamante ne budul woon ñoom xëy na tey mbir mi du yegg fi tey mais li ci gën waar moo di ren mooy encore ñaar fukki at ak ñeent di maam Ibrahima Sakho génne àdduna ak léegi donc boo xoolee moom jiite na ko ñaar fukki at ak ñeent ren bi ñaar fukkeelu at ak ñeent ginnaaw bi mu génnee àdduna ñu koy amal mu nekk coïncidence bu xaw a doy ren nag ñu ngi fi waat fii ci campement ko foo sànni mbàtt mu tàkk ndax askan wi bari nañu lool lool lool lool lool lool ay junne junne junne doomi aadama ñoo fi nekk bàyyeekoo nañu ci ruq-ruqaat ci réewum Sénégal yëpp. ñenn ñi bàyyeekoo nañu sax ci réewum Afrique moo am ñu bàyyeekoo ci France moo am ñu bàyyeekoo ci réew yu bari ci Europe ak réew ba ca réew mu gën a sori di Malaisie ñëpp ñëw jog joxante dig daje fii ci diiwaanu campement Ngeekoox ngir na ma fee amat julli gi kon mën nañu wax ne tey Mbour nekk na département bu ñëw torop ndax dafay daje tamit ak lundi de Pentecôte loolu yëpp nag du ci dara su may wax ak yow ni ay kaamil yu bare bare bare bare ñu ngi ko fi wàcce ngir seen ngir ñaan jàmm sax dàq ci Sénégal ngir déggoo xaritoo mbokkoo am di jàmm bi taxoon ñoom maam Ibrahima Sakho sosoon julli gi ngir loolu mën a wéy te njox nañ ci ndax julli gi mën naa la wax ne juróom ñenn ñaa ngi wax juróom ñenn ñaa ngi wax juróom-ñaari nit ñoo ko julli woon te tey mu ngi toll presque ci lu ëpp lu ëpp presque xaw ma juróom-ñett xaw ma juróom-ñeenti hectare suuf yoo xamante ne dafay fees dell te loolu rek doy na misaal te bis bu àddan bu bis bu nekk at wu nekk weer bu nekk julli gi di yokku kon li ñuy ñaan rek moo di dajewaat fi euh, li ñuy ñaan yëpp mu doon jàmmi Sénégal yàlla nangul ñu ko jamono ji may wax ak yow nag ñu ngi wàccee ay kaamil yu bëree bëri ngir naatum Sénégal ngir jàmm ci Sénégal ci kaw nag tàngoor bu métti nag mu ngi ci tàngoor bu méttee métti heureusement sax daje nañ ci koor ndax bu ñu dajewuloon ci koor xam naa ne ñàkkum ndox mi dana ko xaw a tar ndax fu mu nekk ni ngir am ndox moo jàppee sax jafe-jafe la kon ragal naa ne yàlla xam na li muy def moo tax yàlla juddu ñuy sant yàlla bu baax a baax di gërëm yàlla bu baax du ñu amalee julli gi kon donc loolu moo fi am ci kanam nag la ñuy amal julli yi ñu ngi xaar askan bu bëree bëri euh, Thierno Daaf moo doon jokkoo ak yéen fii ci campement Ngeekoox biir rajo télévision Walfadjri. jaajëf Thierno Daaf ñu ngi lay sant di la gërëm ku ne nag euh, Mbour sa xel daal di jëm fële ca Popenguine Popenguine tamit doon tey ba yoonu suñu mbokk chrétien yi euh, fu nekk ci réew daanaka la ñu bàyyeekoo ñëw daje ci barab boobule fas yéene màggal Pentecôte euh, muy bés boo xam ni ñu ngi koy jagleel waajur wu jigéenu Yeesu Christa di soxna Mariama bii nag di téeméer ak fanweer bi la yoon ñu koy màggal ñu koy dupp ñu koy màndargale nekk ay julli ak ay ñaan suñu naatango Théodore Semedo lañ fa yabal daañu ci dir soota moom ci suñu yeneen i jotaayu xibaar ca Ndar comme ni ñu koy baaxoo di defee ci weeru koor wu nekk wàcce nañ fa démb ay kaamil ñaanal way dawul yi ñaanal tamit réew mi ndaje moom sax doonoon occasion ci Alioune Badara Diagne mu yëkki ay kàddoom daal di sàkku étudiant nekk ci université Gaston Berger ba ca Ndar ñu teg xeex bi suufa te dellu ci classe yi Alioune Badara Diagne ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. Ndar am na problème ci université Gaston Berger ña fa nekk ñun ñoo suñuy doom lañu suñuy sët lañu suñuy jarbaat lañu ña fay jàngale suñuy nawle lañu avenir réew mi ci xale yooyu la nekk yàlla na yàlla tàppe yi ba lañuy jàng barkeel seen ay waajur jëfandikoo ko jëriñu ci ak réew mi ña di jàngal yàlla na yàlla tàppe seen xol ba nu am xolu muñ mën di leen baal te bañ di gaawantu di soññ président de la république mu continuer ci passage bi mu nekk def année sociale di waxtaan nañuy waxtaan guerre yi ci àddina bi yëpp kenn gañewul dañuy dem toog ci taabal ji pour weccee xalaat waxtaan maa ngi ñaan sama doom yi yàlla leen yàlla jàppale kilifa yi itam yàlla leen yàlla defal sutura ci darajay rasulullah lool rek lay ñaan diggante jàngalekat yi ndongo daara yi nguur gi jàmm rek laa cee ñaan bu kenn wax ni maa am dëgg bu kenn wax ni maa gagné kenn gagnéwul kenn du am dëgg jàmm mooy gagné jàmm mooy mooy am dëgg yàlla na yàlla def jàmm. wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi askan wi dëkkee fii ci Ndakaar rawatina ci banlieue bilee xamatuñu luy dund di saf jamono ji li ko waral moo di ñàkkum ndox mi leen waa SDE tek toog nañu lu toll ci diirub ñaari semaines yoo xam ne nii seen robinet yi xellewul loolu safaanoog ak la nga xam ne nii moom la waxoon ci communiqué yi lee ba tax ñu yëkkati seen i kàddu di sàkku ci njiital réew Macky Sall mu wax si ndax lii kat mëntu la wéy Mamou Diaby Gassama Mami Kanté reportage. ba jamono ci ndox bu sell amut fi ci ndakaaru ak banlieue bi dog-dog ndox ba nga xam ne moom la SDE waxoon mi ngi woy ba léegi te li mel ëpp na loxo bu ñu sukkandiku ci askan wi mi nga xam ne sax mi ngi ci ab jaaxle bu métti fii ci Parcelles Assainies. depuis keroog ba léegi mat na léegi doo semaine ñu am ñu ndox chaque jour ne ne nga yeew suba te depuis sept heures ñëw fii ba dix heures onze heures lii moo dafa métti. lii ndox pompe la. ne ngay naan parce que ñu am ñu ndox. gis nga da ngay yeewu sax doo am loo sol moom mais yi dañuy sonn duñ am luñ toggee luñ fóotee même chose yëre yi ñu ngi ko jàll doo am loo fóotee dañoo waxoon cinq jours lay am. gis nañ ne ëpp na cinq jours métti na trop. toog nañu ay weer yu bëri suñu robinet yi xelluwul ndox kàddu yooyu mi ngi tukkee ci soxna si. depuis Korité boobu léegi am ñu ndox ñun fii la ñuy root. ñàkkum ndox mi mooy indi feebar. boo naanee ndox mi nga xam ne waroo koo naan doo feebar da feebar. ndox bu ñuy naan instant bi ñu toll c'est pas filtré ndoxu pompe la te dañ ko installer direct ci nappe phréatique bi te loolu mën na indi ay ay feebar yu bëree bëri ci population bi te nit ñi fii tey ñu ci bëree bëri ndoxu pompe moom la utiliser. askan wi nag mi ngi ñaax nguur gi mu indi ay saafara ci nu mu gën a gaaw ndaxte nee nañu dañoo sonn lool. état bi puisque ñoom dañoo waxoon ay réglage la dama leen di lancer appel bi nga xamante ni nañ ci gaaw rek. parce que cinq jours la ñu waxoon mais instant bi ñu toll dépassé na cinq jours ndox boo ko amul source de vie ndox boo ko amul émergence fu mu mën a demee dafa am acteur principal yoo xamante ni ñooy indi ndox nit ci émergence boo lekkul ba suul naanoo ba màndi émergence mënoo ko am. ñàkkum ndox doona la nga xam ne dañ koy nemmeeku saasu ne fii ci ndakaaru ak gox yi ko wër bu ñu sukkandikoo ci askan wi daa mel ni SDE mënutu leen jox la nga xam ne mooy ndox bu sell li nga xam ne sax nee nañu ni nit mënut a dund te amul ndox. waruwaay ngir ci fa xamal gox la boo xam ne nii ma nga nekkee fële ci diwaanu Géejawaay askan wa fa dëkkee daanaka ñoom it kontaan nañu du góor du jigéen du mag du ndaw ñoom ñëpp ñoo maas wàcc ci mbedd mi gàlloo ay sagar yoo xonk coy di ñaawlu jafe-jafe yi nga xam ne nii moom la dëkk dund ci seen gox lee ndax bu dee ndox mu làpp mu ñu naan amuñu ko amuñu yoon bu baax bu ñu feebaree daanaka duñu faju ndox amuñu kër docteur euh, teg ci bu timis xase jot kenn dootul ñemee génn ci biti ngir ragal ku la addu kalpe seeni yoxo nag la ñu gàddu topp ci mbedd mi yuuxu wàllu yi dañuy dem ca waruwaay wala seen ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro Théodore Semedo. suñu jafe-jafe mooy ndox ak tali ak école ak dispensaire ak suñu jumaa ji amuñu jumaa bu baax amuñu école amuñu marché amuñu yoon bu baax yoon bi suñ fi ay agressé dañuy agressé ñun jigéen ñi fi dañoo sonn balaa ñu am ndox bu baax dañuy dem ba géejawaay wala Asegna gis nga ndox bu bon bii ñuy naan mooy ci suuf lay jógee dëkk bi bari ay nit. mais amuñu fi dara dara dara filao yi ñooñu sekk ak dex yi. suñu premier jafe-jafe mooy yoon amuñu yoon amuñu ndox ku la xam ne gis nga pompe yi ku ciy matu guddi saret ngay jël mu metti lool te ku la xamal ne dëkk li ko yor mooy daara di jumaa di dispensaire di hôpital di li xam ne mooy marché te amul fii te kon loolu ku nekk na war na koo bàyyi xel ndax kenn ku ci nekk agressé nañu wala ñu agressé doom te li may wax nii xam nañ ci dara. kenn ku ci nekk agressé na sa doom suñu doom yi coor la leen jaasi suñu doom yi jam lañ leen amatuñu dara ñemetuñoo génn ñemetuñoo liggéey te dëkk marché moo ko yore. fii waruwaay fii waruwaay lañ wax de beneen dëkk de su fekkee ne yéen waa dëkk bi yéen waruwaay moo leen ñor su ëllëg si biiree politicien bu fi ñëw nañ ko ci biti. nañ ko dax génne ko dëkk bi parce que faale wu ñu yëguñu ñu tinuñu ñu kon waaye ñu am fula ak faale suñu bopp nag ñun soxlawuñu poosu kenn soxlawuñu ñaar fukk kenn lu ñu defaral suñu dëkk bi leen soxla jigéen bu fi ne xooleen yoon bi ni mel yéen ñuy jóge fii jaar ay trois heures ni matin ngay jóg di fi jaar ngeen ne Dakar fii Dakar la ñu ne ci Dakar la ñu nekk ngeen di wax ay ay àll di wax ay ndox ki courant or ko Dakar fii am na dëkk yoo xam ne amuñu ndox amuñu dara loolu c'est inadmissible kenn mësu ko dégg. ndox mi kat président du ko naan premier ministre du ko naan Aliou Sow du naan kon ñun waa Waruwaay bu ñu naan ndox bi te ñoom ñoo fi teg. mouvement Zem le Sénégal tey woon manifeste boobu ne daaxuñu sax wàcc ci mbedd mi amal ab toogandaay ñaxtu ca buntu SDE ngir ñaawlu ñàkkum ndox mi askan wooyu di jànkonteel te mu ne day fu nekk dem nañu jooytu ko fa kilifa gu ñu xam dem nañu seet ji la waaye taxul mbir yi saafarawu gannaaw loolu ñoom waa mouvement Zem le Sénégal ñaawlu nañu seen littoral bi ñu jàpp di ko caxat-caxatee mu lay kamara boobe am na ci ay kàddu yu mu ci ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo ñëwoon nañ fi ba waxtaan ak autorités yi nga xam ne ñoo yor quartier bi ñu wax ñu jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ci wàllu ndox mi ak ci wàllu yoon bi ba ngeen ñu ko waxee itamit mm-hmm. ñun lañ ca mën muy dox mm-hmm. ànd koog yéen ci autorités yi ko war a saafara mm-hmm. yaakaar naa ne ànd nañ ko ba ñu àggee ba ca loolu la ñu diggee woon defuñu ci dara ginnaaw ak boo xam ne na diggee nañu te diggee yi amul lenn loo xam ne def nañ ko ci kon li des mooy ñu wane ne ñun ay citoyen nañ te dañu am ay droit loolu ñu interpeller le directeur général de la SONES mm. ne ko war waay dafa war am raccordement ci réseau hydraulique bi mm. te ñoom ñoo ko dige woon mm. ci loolu ñu leen di ñaan buñ ko deful ñun daañu jóg ànd ak population war waay dem def sit ci directeur ci direction générale bu SONES wala ñu tamit ay citoyen nañ le président Macky Sall jomtukaay yem wala war a joxe yëpp pour que askan wi mën a dund ci dund bu te ak bu dal xel jox na leen ko tey ji chef de l' état buy xalaat PUDC di dem ba ca àll ba à l'intérieur du pays ñu fay def ay projet ak ay programme pour nit ñi am dal yaakaar naa ne weesu ñi nga xam dañ nekk biir Dakar donc autorité yi nga xam ne nag moom la jox ndombal tànk pour ñu régler problème yooyu ñooñ taxaw ci problème askan bi régler ko directeur général de la SONES ñu ngi koy wax ne lii ultimatum la bu ko régler wu fee koor gi di geex daañu mobiliser population yi war waay yëpp te du waa war waay rek ñooy jóg mais banlieue yëpp daañu jóg solidaire ak waa war waay ñu régler leen seen problème bi nga xam ne wàllu ndox mi la ci wàllu bande filao yi ñun dañu d'accordoon ci ne di jàppale suñu collectivité locale yi géejawaay yëmbal ba Malika pour que ñu déclassé ko déclassement boobu bu dee ñu ngi ciy xeex c'est parce que dañoo xam ne benn réserve foncière la banlieue bi am woo xam ne mën nañ ci def ay projet yu mag a mag yoo xam ne doomu banlieue bi dootul amal leen lu muy soxla ak yeneen ñi nga xam ne ñi nekk ci dakaar wala feneen xëy dana mën a am euh, artisans yi daañu mën a am fu ñu nekk mais li ñu constaté mooy ne caxat-caxat bi nga xam ne ñi ngi koy commencé def ci bande bi dafa ëpp te déjà déclassement amagul fii seen côté fii ci Malika ñu ngi commencé dagg filao yi. xëy nag ba jigéen ñi mën a accéder ci yenn financement yi ko defee ñu mën a liggéey seen bopp loolu mooy di tax a jóg kuréel gi ñu naan accès gannaaw ba ñu dajalee jigéen Touba yi taxawal leen ay kees may leen ay machine wal ak it ay machine yoo xam ni ci lañuy ñu xoolee gerte docteur Pape Amadou Ndiaye ma nga xam ne ni nisëram moo di accès ak euh, accès fépp. te loolu ngir mu mën a nekk mu ngi tàllal loxo nguur gi ngir ñu jàppale ko dañuy dem ca Touba Mbacké fekk fa Mour Matar Sarr association communautaire de crédit d'entraide et de solidarité ñu gën koo xam ci accès ñëw ngir dimbali jigéeni Touba ñi nekk ci guddi gu bët setagul daf leen taxawal ay kees yu ñu mën a liggéeyee jublu ci xeex ndóol ak feebaru xale yi docteur Pape Amadou Ndiaye mooy initiateur bi. seet jigéenu Touba yi nan lañ leen di delloo njukkal ndax gis nañ ne jàmbaar lañu. bës bu ne ñi ngi ci ci ci ci ci ci waar wi di xeex di waaye dafa am loo xam ne dafa leen loo xam ne yu leen të yooyu leen të nag la ñuy jéem a seet nan lañ leen def ba jàppale leen ci ci loolu la doxeek ñoom ñu indi leen lu ñuy wax ay kees keesu accès maanaam euh, euh, gaal yoo xamante ne da leen dañ ciy denc seen i alal ba pare ñu koy labalante seen biir denc googu nag ak loolu da leen di jox koom koom googu nag dañ ciy liggéey waaye nag su fekkee da leen di jox koom ñu ciy war a liggéey te amuñu xam-xam dootu duñu sori ci loolu la ñu xeexee ba indi leen ay formation maanaam jàngal leen yaatal seen tàggat leen loolu moo tax ñun ñuy liggéey pour que jigéen ñi mënal seen bopp. docteur Pape Amadou Ndiaye dolli ci ne projet bii di accès dañ koo fas yéene yaatal ci réew mi yëpp li ni mel moo tax sax ñu bëgg nguuru Sénégal dugal ci loxoom. yoon googu ñu yokkee Sénégal nag kenn mënu koo yokk te da ngaa bàyyi jigéen ñi gannaaw ndaxte too nee damay bëgg a yokk dëkk ba pare ñi nga xamante ne genn genn wàllu dëkk bi nga bàyyi leen te wax jàppoo leen kooku sa yokk sa yoon du gaaw a yegg loolu moo tax président de la république wax ñu ñu jàppale jigéen ñi pour que ñoom ñu mën a mënal seen bopp te mënal seen bopp ci PSE boobu ci formation yi maanaam tàggat leen ci jàppale leen ci am alal moom mooy koom gi ñuy def ak jàppale leen ci formation loolu moo tax ñun ñu ñëw fii Touba di liggéey ak jigéen ñi. ñoom jigéen ñi Touba yi ñu taxawal projet bi rafetlu nañu ko bu baax. waa ñuy sant euh, docteur Ndiaye. kooku moom dañ koy sant di ko beral sant ndax lii am te yombul Macky Sall dañoo defal waa mbëtt nag wala roccil baat ndax ay jigéen lañ dëkk ci réew mi nangoo liggéey doon ay jàmbaar te boo dimbalee jigéen dimbali nga réew ma kon war nañ ñoo mën a jàppale bu baax na xam ne ci mbir mi lañ bokk nañ ñu gestu te dimbalee ñu développement moo ko ñor te docteur it développement moo ko ñor kon yaakaar naa ñooñu bu ñuy ànd di def rek te yàlla tax dara dara dara dara dara lu ñuy ragal ñun amuñu ko ndax xam nañ ne fi ñu teg suñu loxo foofu la kon nag dañoo bëgg ki nga xam ne mooy kilifa réew mi na gestu waa Touba te xam ne waa Touba ci mbir mi la. accès nag seetlu nañu ne ci ndaje mi may na leen ay moulin à ak ay machine décortiqueuse Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr

lu yees juróom-ñaari weer ñu yegg ci élection présidentielle yi tax convention régionale bu grand parti daal di woo seen njiitu parti bi di Malick gàkku mu ñëw ci Kaolack moom mi lay wane bëgg-bëggam ngir déjji président Macky Sall ci bopp réew mi ngir moom ci boppam mu jiite réew mi. Macky Sall na Sénégal dañu bëgg a yëkkati Sénégal defaraat Sénégal sukkati Sénégal loolu moo tax grand parti jóg xam mooy lan mooy gagné Macky Sall au premier tour. suñu ambition mooy lan mooy Macky Sall ñu yéen ko ba ci kaw door ko ci suuf premier tour Macky Sall du dem deuxième tour de parrainage sax du ko sauvé. Kaolack war bokk ci liy sukkali Sénégal ci wàllu mbay tax ki la di président mali Gakou di sukkandiku ci programme bu mu duppee alternative sukkali Sénégal ngir delloo Kaolack la mu moomoon ci bassin arachidier. parce que région de Kaolack c' est le cœur du bassin arachidier xam ngeen ne baykat ku ko jàppale mu dem loolu moo muy 2019 ak 2020 benn béykat dootu jënd jiw Sénégal grand parti jël dooleem yëpp bëgg béykat jox béykat yi engrais jox leen jiw ba pare jox leen ay machines yoo xam ne nii daañu mën a développé le développement agricole de la région de Kaolack. ba tey it moom Malick gàkku yokk ci ne lajj gi nga xamante ni nguur gi lajj na ko ci ay programme politique agricole yi nga xamante ni ndërmel na mbéy mi li mu gis mooy ay pexe yu baax yi ñu nas mun na tax file di bassin arachidier suqali réew mi lee di Sénégal. li politique Macky Sall def yëpp. dara baaxu naka la ñuy mën a xamee ni téeméeri sénégale yoo jël juróom-ñaar fukk yëpp ci mbéy mi la ñu aaju ba tey nanguwun toppatoo mbéy mi nu mu waree ñu indi seeni programme yoo xam ne yëpp a lajj lu ci mel ni plan Sénégal émergent ak PRACAS ñëpp a lajj lu ñu war def mooy jox ay jumtuwaay yu xarala ñii di béykat yi ndax foofu rek réew mi la di Sénégal mun na ciy jaar suqaliku j'allais même dire de la décadence ci ndaje mu yaa moomu ñu doon amal moom président Gakou xamle si ni bu nekkee président de la république lii di bourse de sécurité sociale social mun na ciy jaar ba daqal li nga xamante ni moom mooy ñàkk gu métti gi ne ci réew mi. bourse yi dañ koy jox caractère économique maanaam dañuy fexe ba képp ku yor bourse sécurité familiale ñu may la doole pour non seulement nga mën a am bourse boobu waaye nga mën cee liggéey aussi. loolu moo tax tey jii Macky bi nga xam ne nii yërëmul jigéen ñi yërëmul góor ñi kër gu nekk ba dugg ko 100000. grand parti dina ñëw ak candidat Malick Gakou di dugal ci kër gu nekk trois cent mille francs parce que trois cent mille francs yooyu mën na tax famille développé wu mën tax Sénégal avancé. ci fàttali convention régionale bu grand parti bu Kaolack am ndam ci xew-xew bile ci mbooloo mu takku bu ñu dajale ci ay militants ak i ci tàmbalik weeru koor gi ci salle bu mag bu chambre de commerce bu Kaolack Kaolack Alhassane Ba Walfadjri jaajëf Alassane Ba cité comico ca Mbambilor daloo ab juma ju bees ubbite gi ñu ngi ko doon def ci te Omar Gueye mi jiwru ji dénk wàllu napp mi nekkit maire commune Sangalkam ndaje moomee sax doon occasion ci moom monsieur le ministre Omar Gueye mu daal di ñaanal njiital réew Macky Sall yàlla jàppale ko ba mu àggali naal yi mu naal ngir Sénégal ndaje moomee Najib Sagna lañ fa yebaloon comico nekk si commune Bambilor moom nag am na juma bu njëkk bi juma bi nag ñu ngi koy inauguré vendredi bu passé bi adjoint maire nag bu xam ne ni moom fekkee mbir mi moom nag wax na ni ka jumaa bi am na njëriñ pour askan wi. ndax bi bu bëri boo nag xam na ni moo dirigé jullee bu njëkk bi fii si jumaa ji nag moom laa wax na si njëriñu mosquée bi pour surtout euh, musulman yi fi nekk. mbokk xoolal tey fi ñëw ci ay mbokk. bay ko ci ay gox yu bëri yoo xamee ne xamante am na ñoo xamee ne xamante nañu tey te mosuñoo xamante kon jàkk moyen la pour nit ñi xamante waaye jàkk moyen la pour nit ñi dimbalante jàkk moyen la pour nit ñi jàppalante jàpp jàkk moyen la pour nit ñi yërëmante bis maa nag moom dëgëral na sax lu imaam bi wax wax lu euh, jàkk lañ lépp nag moom jàmm ak xéewal ci Sénégal ministre de la pêche nag ñëwaat na si mbiru xam ne nii président Macky Sall am na si programme bu xam ne nii di jàppale yu bari mel na tamit loolu sax mun na egg bi jàppale waa Bambilor fii si Rufisque nañu seen télévision Walfadjri jaajëf Najib Sagna ñu ngi lay sant la gërëm wax ci weeru koor gi nga xam ne traite la ci jaaykat yi rawatina jaaykatu kaas yeeg yeneen yu ni mel eh, nee nañu bu ñu amul leen gënal weer wi dafay wéy ndax lañ ci jaay daanaka duñ ko jaay ci benn weer Fatou Bintou Diouf Seyda Mariama Ndiaye doxantu ju woon nañ ca marché Grand Yoff ñu teewul leen ci reportage. weeru koor bi doon ab weer bu sell boo xam ne bu fekkee ñenn ñi sax dañ ciy jàmbat ñi nga xam ne ñoom ñooy jaaykatu kaas assiette ak li ni mel ñoom waxuñu benn yoon lu jëm ci linimel ndax ci biir weer bi la ñu jaay bëri na lool Abdourahmane Gueye ak kii di Cheikh Fall ñu dajeek ñoom ca marché bu Grand Yoff ñoom du wax lu wuteeg li ni mel. dëgg yàlla ñi ngi sant yàlla bu baax a baax baax ñi ngi yàlla bu baax ndax Dakar moom dafa mel ne koor dañ koo fonk trop koor bu ñëwee da gis dañuy pareel jënd kaas jënd palaat waaw jënd tarmuus pareel ko daal ku nekk yaa ngi xool noo tegalee sa borom kër ndogu. xool nu rafet daal nga di ko def ay moom kaas yeeg xam nga vaisselle affaire moom mu ngi dem normal moom vraiment jaay bi gars yi ngi ci ko am ne gars yi ngi dugg di jënd ñu jënd ngi jënd ñuy am na ñuy laaj am na ñuy laajte ci wet ga jaaykat yi ñoom la ñuy ñaawlu moo di li nga xam ne moom la allah subhanahu wa taala digleel ñi nga xam ne ñoom ñooy grossiste yi bàyyi nañ ko seeni gannaaw ndax njëg yi dafa yokk bu baax koor moom mën naa ne vaisselle sax gars yi dañ ciy yokk waa dañ ciy ko yokk magasin yi parce que loo xamante ni ñun dañ ko doon jënd exemple ay 600 bu koor gi ñëwee mën nañ profité def 650 quoi yokk ko. li may ci koor gi ak bu yëpp man prix bi benn la daal yokku ma ci dara. yenn ci ay soxna foo dem ci marché yi ñoom ngeen fay fekk ndax nag li nga xam ne moom moo nekk mbirum taas ak i assiette doon na seen i jumtuwaay ngir ñu wane seen i bopp ci biir weeru koor bi. xale moom ñu ngi def bu baax surtout jéeg jéeg jéegi moom concours bu métti ci lañ nekk moom. saa yu wéeru koor taxawee rek dépense yi day gën di yokk ndax waajur yi lañ daan joxe bala weeru koor ak léegi ute na lool waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñooy jaaykat yi ñoom dañ ci gis seeni bopp bu baax ba buñ doon am ñaar fukk li fu mu nekk nii ñoo ngay am fanweex jërëjëf soxna Fatou Bintou Diouf kon mbokk yi ci foofu la ci la ñuy tàbbisee ak yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ci ànd ak soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke xibaar yi bitim réew yi dañu koy doore fële ca Venezuela foofee nga xam ne njiiti réew ba fa toogoon di Nicolas Maduro jëlaat na lii di élection présidentielle yi maanaam jël na raw gàddu bi moom nag moo war a toogaat ca bopp réew ma ki ko xam le di njiitu conseil national électoral maanaam kuréel bi ñu denk wàllum wote yi foofee ca Venezuela di Tisibe Lucena moom nag nee na bile résultat dara du ko soppi kii di Nicolas Maduro mooy toogaat bopp réew mu Venezuela mu fekk yaakaar lool di Henri Falcon nee na am na lenn loo xamante ne mën nañ ko see laam-laam ci yile woote ndax kat dañoo defoon ay tent yoo xam ne dañu fa doon yóbbu ñi doon woteel kii di président Nicolas Maduro te amoon na ay mbaquus yu am solo yoo xam ne mu ngi leen fa doon xaar lu ni mel nag mel ni benn guerre boo xam ne dañ koo defal ñii di électeurs yi waral ñu daal di woteel kii di yooyu lee mbir nag kii di Henri Falcon du ci wet benn yoon moom ak kuje politique ba nekk ca Venezuela ñoom sax dañuy sàkku ñu amalaat yeneen i wote laata njeextalu at bi ñooñe nag am na ñeneen ñu leen di jàppal tànk ci liñuy ñuy ñu di waa États-Unis waa Union européenne ak fukk ñeenti réew yoo xam ne ñu nga bokk ci Lima nekk ca Amérique ak Caraïbes ca Grande-Bretagne wara sax Angleterre la ñu jëm foofee nag ngir samp laaj bëgg xam fa nga xamante ne moo lakkoon ñu tuddee ko Tour Grenfell ndax mënoon nañ koo wattu boobu boobule laaj nag samp li ci indi tontu bokk na ci ab enquête publique boo xam ne daañu ko ubbi ci altine gi lépp nag ngir bëgg a xam ci guddi fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru juin at 2017 juróom ñaar fukk ak benn doomu aadama yi ñàkk seen bakkan ci bile immeuble nga xam ne am na ñaar fukk ak ñeenti étage faatoo anam ya mu demee faaw ñu xoolaat ko lijjanti ko xool ko seetantal ko enquête bi nag dina aaju ñu laaj ci ñi di sapeur pompier yi laaj ci ñi doon faj ñi nga xam ne ñoo gaañu ak it ñooñee nga xam ne jotuñ cee ñàkk seen i bakkan lu mu ci mën a doon daañu ko def bu ñu demee nag ba ci weeru octobre bi ñu dëgmal enquête bi ca la muy dëgmal moo di ndogal ya ñu jël gannaaw ba nga xamee ne lakk bi am na ba ka weesoo ak lan moo ca mujjee tukkee lépp nag daañ ko saytu ci biir enquête bi ñu jeexalee xibaar yi bitim réew yi fële ca Chine ak euh, ngelawu suuf bu am doole boo xam ne ñu ngi ko fay xaar ci ay bés bi ñu dëkkmal moo tax it ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàllum jaww ji maanaam météo bi artu nañu dànkaafu askan wa yeewoo rawatina ci bët gànnaaru Chine nee nañu leen nag ñu fexe ba daal di mottandiku génn ndax ngelawu suuf si dina te nit ñi gis bu ñuy dox rawatina it bu ñuy dawal oto li ñuy sant askan wi moo di ñu toog ci seen i kër fatt seen i buntu fatt seen lépp nag ngir moytu suuf si dugg ci biir euh, kër yi ñi nga xam ni ñooy saytu alam gi di environnementaliste yi nee nañu lii indi ngelawu suuf yi foofalee ca Chine bokk na ci garab yi ñuy gor ci àll bi waaye itam mbay gu bëri gi ñuy teg suuf sa fa nekk dem na ba suuf si daal amatul doole bokk na daal ci lii indi bile jafe-jafe ak gàllankoor ci nekki ni askanu Chine jërëjëf soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké ñu ngi lay sant di la gërëm xanaa di leen fàttali rek lu jëm ci déclaration bi nga xam ne ni El Hadji Sidi Lamine Niass war na koy amal ci ngoonu tey jëlee maanaam bu ñeent waxtu dama ba fegg lu ci toll ak fanweeri minute lay doon ab ndaje lay doon fas mu fas yéene ko seq ak taskatu xibaar yi loolu ñu fas leen ko dégtal en direct ci Walf FM ak Walf TV euh, kon déclaration bi bu 16h30 jotee lay doon. ba mbokki lii moo nekkoon li furusé woon ci wàllu xibaar di sant di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo Guèye mi fare woon ci xarale gi réalisation soxna Ndeye faatu Ndiaye Mbacke ci kàddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba man mbokki ñeendoog jàmm